la DIC la division des investigations criminelles moi d'identifier bien identifier que euh, cerveau ah, boo xam itam moom dina doon yëngu si ay chèque exactement alors donc le cerveau euh, ce qu'il est convenu d'appeler le scandale des chèques du trésor falsifiés dans le trésor nag dina doon falsifié li n'a xam comme des chèques ay euh, importation sans déclaration euh, division des investigations criminelles daal leen identifié bokk na si fonctionnaires fonctionnaire bi nga xam ne itam le ngi yoo si turu ki il est pointé du doigt exactement donc on a si yaatal agent atelier boobu di ki nga xam nekk moo di ñu ne fa doon défar ay cachet yu baxul manam ay faux cachet euh, en attendant euh, en attendant justement euh, la descente pour voler des chèques avant d'imiter la signature du père général manam mom da doon xaar tout le temps li nga xam nekk moo di su ñëpp ñëpp suñu wàccee mu dem sàcc li nga xam nekk moo ay chèques. Euh, su ko sàccee ba pare euh, mu imiter li nga xam que modi ay signature jamour euh, pour dem retirer li nga xam que modi di exactement alors dans sa chute ginaaw ba mu daano il a emporté le transitaire Malé Seck bi nga xamni tam mo jotone jotoon ko inter via ben intermédiaire ben chèque bo xamni tam donc daal falsifier falsifié ci 400 millions si ay koppar ginnaaw rek benn saisir exactement PNF mo daal di ben ouverture d'une information judiciaire peut-être pour la c'est le léral c'est le de dernier falsification de chèques escroquerie au dernier public blanchiment de capitaux ñu ñëpp li nga ak def li nga trois nouvelles arrestations euh, la DIC def division des investigations criminelles parallèlement force aussi douane euh, enquête sur les importations sans déclaration les soldats de l'économie chiffrent le carnage euh, bu daal di plus de 8 milliards suñu ay koppar alors avant euh, li xew si réew mi bari na trop dig moom instant bi amna na enfin bien sûr imitation de signature falsification de chèque comment le comprendre. oui c'est un conglomérat de bandits au sommet de l'État. Hmm. un conglomérat de bandits. c'est des délinquants fonciers. et comment dire financier euh, financiers hmm. des délinquants financiers ay nit yo xamanté yo da ngay xaar ba ñëpp nga ñëw sàcc cachet bi sàcc cachet bi ba pare im imiter signature bi pour retirer ay chèque loolu mooy délinquance euh, financier kooku dañ ko war a nag ci kaso bi franchement xam nga kaso kenn du ko yéene nit mais yii nii boo ko déggee nii non non yow yow tu as même envie même ça euh, jël ko yo yow yow yow sa bopp sa dugal ko ci kaso bi loolu faut koy expliquer dans un pays aussi pauvre mooy li may waxoon li may wax rek boroom costume cravate yi ñuy jekk rek rafet macha allah jekk sen costume tak ay cravate foo leen fekk naw leen dëkk ci lii lañ je ne dis pas tout le monde la majorité gis nga ki ngay wax ni, c'est des bureaucrates c'est des bureaucrates ñooy def bobo boobu hmm. falsifier ay chèques sàcc ay cachet pour retirer ay ay ay chèque banditisme pourtant ñu jang ba né ar ñu orienter sen jang bi ci banditisme ñu orienter sen jang bi si ay tapalé ay tapalé ay sàcc lolu moy sàcc l'on nous sàcc la. Mm. képp kuy imiter signature pour retirer xaalisam lolu nous la mëno ko woyé kooku boko ko ça jarul layal ba ay explication Dang ko yobou kasso. mais on parle de 400 millions. yow de nga xeeb millions. waaw motax tax dafa beuri la. 400 millions khalis bu beuri la. ci ay falsification de signature ay sàcc cassé ngay dem ba empoché khalis bu bu tol noonu 400 millions nga koy sàcc yobou ko sa keur nga koy dundee ak say njabot. et maintenant tu es fier quoi tu es très fier un voleur au au sommet de l'État, bui buy sàcc xaalis état il a yóbbu ci ay njabootam ci ay famille am di ak ay maintenant tu es fier d'être borom cœur, woy le patron costume cravate alors que sa famille ça xamul lu ñuy lekk sa il est temps de mettre euh, dans les bonnes conditions ces fonctionnaires pour ne pas les connaître à ces. non c' euh, pas les les fonctionnaires sont dans de bonnes conditions. Ah lan ah. non non non du ça? il faut moderniser l'administration et réformer l'administration sénégalaise. Pourtant, Olivier Boucal demande Il faut moderniser cette administration sénégalaise. Sinon, nous continuer de am ça qui rek ay falsifier ay Ça dit que il faut que nous dem vers moderniser, moderniser l'administration, hmm. il faut que nous dem vers la numérisation de l'administration. Xam nga numériser l'administration dit bu dugalee signature bu que machine bi ndakoy détecter détecté day signaler partout yo mën nga togg Saint-Louis sax gis ni que diw ni il a essayé d'introduire une signature bu bokul machine bi da afficher affiché rejeter rejeté automatiquement il faut que nous aille vers la la la numérisation de de l'administration am na ay kayit yoo xamante jarul signature ak cachet ay papier ni ni ñu jox la pay kayit nii nga signé kàcc kàcc kàcc ba paré tamponner non ñun Sénégal war nañu fofu. exemple yo, exemple yo, signature mëna wax signé wax ni. signature signé. yo fallu yo nga voilà man imagine muy sama signature parce que mi na sama signature man Arfan Fallu mën dem tey ci banque bi mu sacc mu sacc sama chèque. par exemple mu imiter sama signature mu retirer sama xaalis. Hmm. la Sénégal war nañu rombo administration bobu war nañu commencer di numériser ndànk-ndànk parce que projet bobu mu ngi fii mais lan moko ko lan moo yéexal projet bobu numérisation de de de l' administration ñu dem bi ah, vers une mais commencé woon na ko Arfan mais loolu laay wax il faut que ñu accélérer yëf fi parce que li ni ñii li ñu def ni falsifier ay chèque xaar ba ñëpp wàcc nga ñëw yolos yolos yolos yi yéegaat ndànk yéegaat ndànk yolos yolos yi sàcc kasse bi ñu ko xam la en fait non ñu xam entreprise non xam entreprise bi yow ko xam entreprise bi mooy xaar ba ñëpp wàcc. mu yéegaat mu yéegaat ndànk. mais sàcc kase bi. non vigile bi mooy day day toog ci bunt bi rek day day jàpp ni kii agent la am na droit bi. visi vigile bi du si xam dara day jàpp ni ko comme fii lay liggéeyee donc bàyyi ma bàyyi ko mu dugg amaana daf fi fàtte dara gis nga loolu bu ñu ko numériser woon waa ji du si mën dara. bu voulez signature bi même bu ko imiter machine bi day détecté fële da koy rejeté automatiquement day sonal boppam rek day sonal boppam. Hmm. moo tax ma ne solution bi loolu il s'agit pas de mettre en bonne condition d'accord je suis d'accord ñu mettre en bonne condition. Hmm. les les les travailleurs de la fonction publique. Hmm. je suis d'accord sur ça mais aussi il faut qu'on aille vers la modernisation de l'administration sénégalaise depuis 1960 ay ay les tamponné lélé ñu 10 heures li nga am légui mu 13 heures wala 16 heures. alors que ak caché mm. mu non 14 heures nga nga 14 heures 13 heures pause nañu xaaral 15 heures 15 heures la recommencer waat. 17 heures buñ ko numériser def sa affaire bi imprimé ci ci ci nga jël ko wala ni tchèque ñu la sa téléphone nga Google nga taper, taf taf taf affaire bi parce que c'est numérisé nga nga am hmm. tranquillement hmm. mais enfin am tranquillement tu crois que nous mënuñu ko def. milliards yi ñi nous, ci mi ça sert à quoi les détournements de milliards là buñ ko investir ko ci côté bobu ñu def l'administration toute numérique ñu devons jël partie xaalis bi ñu dem régler la question des abris provisoires. alors c'est clair Allez, d'autres nous jàngati ci ay sàkket. alors merci beaucoup tu crois que les milliards là ça sert à quoi. alors ñoom ils préfèrent détourner ces milliards là au détriment du peuple sénégalais bu ñu une réduction des comptes ay nit taxaw fële dina am non mbiru fayantoo la loolu mooy jikko sénégalais bi. Hmm. nañu waxante dëgg loolu hmm. mooy jikko suñu jikko ñun. yow mën ngaa toog fii yow sénégalais bi nee na non ay diw ay diw ak diw ay sàcc lañu ñu ñu ngi xaar Bassirou Diomaye fay ak Sonko bu ñu yéegee ñu régler seen problème Bassirou ak Sonko ñu yéeg le président Bassirou Son euh, Bassirou Diomaye ak le premier ministre Ousmane Sonko ñu yéeg bëgg def réduction des ñu ñun les mêmes sénégalais ñu ñëwaat ne na non mbir mi est-ce que du doon mbir fayanto hmm. wala réglement de compte la léegi là la question ñun sénégalais lan la ñu bëgg ak lan la ñu soxla ñun jamono bii nii. Hmm. c'est ça la question. alors finalement nous, sénégalais ce lu ñu alors c'est clair exactement donc nous, nous bu mel euh, par les éléments de la division euh, des investigations euh, criminelles Nous avons du côté de la régie.